kuréelu liggéeyal ku tedd gi ci yëngu yi nga xam ne baaxoo na ko amal mu bokk ci bu gàmmu jubsee di amal ay waxtaan mu bokk ci thèmes yi ñu tànn nga xam ni commission culturelle tànn na ko thème bi ñu fas yéene laayante biir mu jëm ci ashamailul muhammadiya fi kitaabati cheikh al qadim muy melokaan yi nga ne ni sang bu tedd bi làmboo na ko mu yonent bi sallallahu ci ay melokaani jikkoom ak ak bindam te gis ko ci mbindum sëriñ bi tomb boobu nag ñu fas yéene ci ànd ak e, xam ci waar wi di toor bu lislaam bi ci ay waxtaan yu am solo yu muy amal ak di bind lépp loo xam ne amal na njariñ jullit yi mooy Cheikh Abdul Xaadir Bousso thème bi xam naa duma ci sori lool ndax comme buñ waxtu wi guddut incha allah comme thème boobu la ñuy waxtaanee te sukkandikoo ko ci mbindum Sëriñ Tuubaa dañ koy bàyyi rek mu nuyoo bu ko defee daal di ñuy ci biir thème bi bu noppee ñu doog a cee sànni kàddu wala ñu résumé li wax kon sëñ Abdou Khadir dañ lay jottali kàddu gi rek nga nuyu ñi si déglu ak di seetaan incha allah te dugal ñi ciy waxtaan yi ok jërëjëf sëriñ Cheikh bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidna wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmain mbokk yi ñuy teewlu di ñu bàyyi xel fii ci jumaay Tuuba ci seen télévision MK TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di la delloo nuyoo sëriñ Seex waaye di nuyu bu baax a baax suñ jiili suñu Abdul Xaadir bu suñ fi fekk ak suñ bàcc mi ñu yor wàll gi di jaaro ci ñoom di nuyu waa daayira bi yëpp waaye di ndokkeel xeetul islaam bi yëpp di sant di gërëm bu baax a baax kuréel gi nga xam ne ñoo ñoom lañu àndal ci liggéey bi muy kuréel liggéeyal ku tedd gi sëriñ seex ni nga ko waxee tom bi ñu wax ne nañ ci fàttalante tey mooy euh, melokaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwee ci biir mbindum sëriñ bi melokaan yonent bi nag bu ñu ko waxee rek muy chamail googu nga wax dafay làmb lu baree bari melokaanu bindin wi da ciy dugg melokaan yi jukko yi da ci dugg uh-huh. yenn ci ay taxawaay sax mën na ci dugg uh-huh. ci ni ko kutubu seer yi di waxee uh-huh. am na ci ñoo xam ne sax bu ñu bind ci euh, chamail yooyu melokaan yooyu dañ ci dugal lenn ci siira uh-huh. ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi ndax daanaka jàng jaar-jaaram yëpp uh-huh. eh, wane na ci ay melokaan yu uh-huh. mat wane na ci ay jukko yu rafet waaye waxtaan wi dañ mën nañ koo tënk rek ci ñaar muy melokaani jukko yi ak melokaani bindin wi xëy na bindin bi moo gën a mën a résumé ci waxtaani ko moo tax dañ ci njëkke li ñuy li ñu xam rek ñun ñëpp yàgg koo gis yàgg koo jàng yàgg koo dégg yàgg koo dund mooy xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom da koo bind ci taar bu mat sëkk ah. da koo bind ci melokaan bu gën a rafet ah. daanaka mën nga ne ab taar aku um màggaay bu doon koddaay nga ne ah. moom la ko boroomam solal sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu ay xadis ak i axbaar yu dul jeex rod na ci ci misaal jële nañ ci ku ñu wax barra mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi moo gënoon a rafet xar kanam nit ñëpp moo leen gënoon a rafet jukko ndax njoolutoon ba mu ëpp gàttutoon tuguj ñu jële ci ibnu isxaaq moom it mu wax ne benn waaye mos naa laaj barraa nu yonent bi mel ne ko est-ce que yonent bi sallallahu alayhi kanamam dafa meloon ni jaasi ci lerxat ak leeraay mu ne ko déeréet waaye kanamam boo koy nuróol mën nga ko nuróol léegi weer weer la gën a nuróol cib leeraay Abdullah ibnu Kaabu daana wax ne déggoon naa Kaabu ibnu Malik muy wax bam bam ratee xareb Tabuuk nga xam ne demutoon doon na wax naan ba ma nuyoo yonent bi sallallahu alayhi xar kanam bi da doon leer xati da doon melax ngir mbégte doon wax naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu musaan bég xar kanam gi day leer uh-huh. ba mel ne pièce pièce weer ba uh-huh. mel ni daal luñ daggee ci weer uh-huh. daan ne loolu moom lañ xamoon ci moom Aïcha di soxnaam bokkoon ci ummahatul mu'minin daan wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ku mbégte musaan ñëwal da ngay gis ras-ras yi jëw yi day mel day mel xati loolu ab taar mënu ko weesu Abubakar daan wax ne damaa xool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi goo xam ne weer wi dafa leer naññ. Mhm. fii layla mukmira mhm. nee na ma ma tàmbali bu ma ko xoolee xool xool weer wi day mujj daal may nattab bi ban moo ci gën a leer ci ñaar yi. loolu <laughs> tamit ab taar ko weesu. Mhm. Abu Hurayra wax naan xar kanam gi day leer ba mel ne weer woo xam ne dafa nekk ci fukki fanam ak lu teg. fukki fan ak ñaar jëm kaw. fan yooyu ni weer wi leere neen yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo mosaan xool kanamam noonu lay mel Ali ibn Abi Talib hmm. mel gi mu ko mujjee melal dafa wax ne yonent bi mooy koo xam ne boo koy soog a gis day am xëyba da nga koy jox respect da koy ragal hmm. man ra'aahu badihatan haabahu waaye nag boo jaxasoog moom nag da koy bëgg hmm. te loolu mooy ak nit dëgg-dëgg nit ku mat dëgg-dëgg noonu la ñu dundee ak moom boo koy soog a gis da koy bàyyi xel waaye boo demee ba jaxasoog moom danga nga koy bëgg man xaalatahu maarifatan ahabbahu daan na wax ne man mosumaa gis ku mel ne moom mel ne du am musta am te dootu allah yii ñu wax ne yëpp nag Sëñ Tuubaa résumé na ko ci ay bayit yu dul jeex yu wute daana wax naan nabiyi nabiyun jammalallaahu zaatahu kon jëmm ji yàlla taaral na kama ahsanal axlaaqa bi tuuri wa ruqi macha allah moom laabaloon na léppam jukko yi ak bind bi muhammadun axjalat anwaaruhu xamaran ah, ah, ak leeram dalaan gàccaal weer ah. wa kullu shamsin xawat fi daw i abhaahu waxuma la weer sax waaye jant rek mën nga koo méngale ak leer gu yonent bi lam yakun charwaahu fi l qudama mooy li ali mujj wax mooy mus sa am moroom ca ña jiitu woon wala yura sarmadan fi l xalqi charwaahu tey du nabi jammal jammalallahu xalqahu uh-huh. kon la rafetal na bindam taaru na lool uh-huh. wa axlaaqahu waaye rafetal na ay jukkoom wal juudu musril a musrin li hat tooli uh-huh. tabam nga daraan gàccaal ab taw bu bare bare nabiyi nabiyun jammalallahu xalqahu wa axlaaqahu xaadal baraaya ilal xusni ay bayit yu bare bare bare macha allah yoo xam ne Sëñ Tuubaa da ciy wane maanaam xadiis yooyu bu ñëwee ci melokaan yi euh, bindin yi ay xadis yu dul jeex rom na ci jóge ci saxaaba yi ñuy melal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko yàlla binde woon ak ni mu taaro woon mhm. sëñ bi nag bi mu ñëwee dafa mel ni daf ñoo résumé la xadis yooyu doon wax yépp mhm. andil ñu jawhar ba macha allah ci ci fukki bayit ñu mhm. ci jasbul muy fukki bayit yoo xam ne daanaka xadis yi yi wax ci melokaan yonent bi sallallahu alayhi yépp mën nañ ne fukki bëgg yooyu làmb na ko uh-huh. boo delloo ci masaadir yi source yi nga xam ne ci lañuy dellu ci wàllu siira uh-huh. ngir bëgg a wutal euh, jukko yooyu jukkoy melokaan yooyu wala melokaan yi bindi boo ko bëggee wutal ay cosaan uh-huh. bëgg koo tasil bëgg ko wutal ay adil la danga fekk ni yëpp yu wér la yëpp yu siiw la ci téere siira yi ak téere yi nga xam ne dañuy nettali chamail yi sëñ bi Euh, mën nañ ni jëlee na ko ci ay masaadir yu wuute. waaye dafay mel ni li gën a leer gën a gën a gën a nuru gën ma ko nuru mooy xay na euh, nuru na ko lool ne ci chifa la ko jëlee chifa bu Qaadi Iyaad waaw ndax chifa boo boo boo delloo ci texte yi ba muy leerale euh, ni ni ni melokaan yonent bi sallallahu ni ko yàlla bindee woon di nuroog jës bu lool ma koy leeral dafa wax ne lii may waaj a wax wér na saxiixa la mashhuura la macha ci ay riwaayaat yu wér laa ko jëlee yu siiw yoo xam ne tusaaroo na ci mm. kutub ahadis yi mm. wax ne ama suuratu wa jamaaluha ni ko mm. yàlla binde woon ak ñim taaroo wa tanaasu bi aadaihi fi xusnihi ak eh, cër yi nim nim dëppoo nga xam ne benn déborde wu ci daan ne daan ne faqad jaat al athaaru saxiixa wal mashhuuratu al kathira bi dalik Ah, loolu moom leer na waaw maanaam ay ay ay nett li yu wér yu siiw ci la ñëwee mhm. daane min xadiisi ali ali nett li na ko anas ibnu malik nett li na ko mhm. abi hurayra barra mhm. aisha ibnu abi haala abi juhayfa jabir ibnu sumra ummu macbad ibnu abbas macrad abi tufayl al adda bun xaalid äh, wa Xarim bun hmm. Fatik wa Xakim bun Xisaam wa gayrihim. macha allah ñii ñëpp nee nañu yonent bi nangam ak nangam ak. nangam ku nekk wax na ci dara tañ ay siqaat teg ci. waaw ñii ay siqaat la. Hmm. te bu Qaadi Iyaad waxee Qaadi Iyaad xam nañ ne ñëpp xam nañ ne hmm. muhaddis la. muhaddis la ah, ah, danaan def naqdul xadis ci lu wér a wér. jàmbaar la am ci ay téere yu du jeex. la qaadi iyaad wax nag moom la suñu tubaa tënk ci jës bu daat koy tàmmale ci yaa mulhiman qad waffaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wal tusallim loolu ci gàttal mooy yonent bi salaa salaam moo kawe ñëpp ñi ko yàlla binde moo leen kawe ay jukko bindin wi lim ci njëkk leeral mooy taxawaay bi qad kaana daa tawassuti fi l qaddi jaali sututi maanaam ku yonent bi salaa salaam ku diggu doomu woon ab taxawaay la mooy njoolu toon ba mu ëpp waaye gàttu toon it dugut déedéet walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami loolu mooy taxawaay bi dafa digg doomu woon te loolu ñëw na ci xadiisu barra ndax wax na ne yonent bi njoolu toon lool gàttu toon lool mufrat mooy loolu nga xam ne koo xam ne dafa dafa dafa ëpp ci am njoolaay dafa njool bu mu ëpp nga xam ne boo xoolee nii boo xoolee jëmm ji day mel lu weng wala mel noonu déedéet mel toon noonu moo tax ci yeneen yeneen riwaayaat ji da gis naa ñu naan riba la woon riba fil xadd mooy ku diggu doomu woon la ab ab taxawaay wa huwa bahiyun euh, euh, mu teg ca walam yakun bil mufrati walam yakun bi aadami mooy xonqutoon cur yonent bi wax ne nekkutoon ku weex tàll waaye nekkutoon tamit ku xonq cur mooy mm-hmm. dafa nekkoon ci digg ci digg bi mooy asmar la woon loolu danañu wàcc ci bayit yi waxoo ba xiyun mm-hmm. asmaru mm-hmm. mu teg ci ne walam yakun mutahama nekkutoon ku duuf ku am yaram ku pataa bari bari yàpp ba noppi mel ne lu ndaw déedéet melutoon noonu walam yakun mukalthama nekkutoon ku gàtt ab sikkin koo xam ne sikkin bi nii dafa gàtt. yaa ne booy xool kanam gi si as sikkin su ndaw lay yor. da loolu dana firi mu ka mu kalsam. mu danañ ko firee koo xam ne kanam gi dafa ron. waaw ndax ñëw na ci xadis ñu ne yonte bi laysa bil mutaham wala bil mukalsam. la a wax bal faaxa kulla man kon ñëpp moo leen kawe woon ci ni ko yàlla bindee kaana yatuulu kulla man maashaahu fii kulli zaman. lii nag dañ ne kéemtaan la woon. xam nga dañ ne njooltoon mu ëpp. gàttutoon tuguj waaye nag ku ku ku musaan ànd ak moom moo lay sut moo lay sut boo demee ba ànd bi jeex nag mu daal di digg doomu dëgg doomu waat waaw moom neñ kiim a njool buñ moo leen di sut moo leen di sut waaw bu loolu jàllee nag ñaar ñaar ñi gën a njool ñu toogee it moo leen di toogaay bi nii moo leen di sut waaye bu lépp jàllee nag boo ko xoolee moom day digg doomu ci yow macha allah dañuy wax ni ci xasaa yi ci la bokk ak ci ah. dalaa ilmu boobu ci ah. kiimtaan yonent bi sallallahu alayhi ci la bokk ah. wakaana waasi an atam ku yaatu woon tenq la hmm. am ñu ne mooy bari alal am ñu ne mooy mën a hmm. joxe hmm. waxe kasa moom ci melokaanam ñu loolu yadxaku bi tabassumi rey gi da daan ànd ak kersa xaqtaay waaye da daan rey ba ay bëñam feeñ rek loolu mooy moom la sañ bi di waxaat ca kanam naan yaftaru fii asna fii asnaf tisam mu teg ci ne waxuwa jalilun xullab ku màgg la woon ku kay woon daraja la waaye xullab la woon xullab mooy ku am gis-gis gis-gisu biir basira arab yi dañuy wax naan diw xuwali xullab mooy ku bari pexe ba noppi am gis-gis gis-gis bayaaduhu bi xumratin loolu mooy leeral li waxoon ne wala mu yëkkun bi aada bi muy xonqtooñ coro kon dafa dafa xeereerun daal xeesaay boo xam ne day jëm ji xonq mooy asmar rek wa ahdab ku bari woon ay kawari eh, mbari bët la waaw loolu dañ ko firee ahdab uh-huh. wa anjalun suura uh-huh. Uh-huh. mu teg ci ne euh, ku yaatu woon bët la anjal mooy waasi'ul ayni bu nag bët yi dafa amoon ay rëdd ay yu sew yu rafet rafet wa anjalun suura moo tax mu ne wa anjal suura sami yastaru fi asnab tisaam kal barqi aw xabil xamam boo jékki-jékkee gis bëñ yi bu muuñee daf lay nuru ak melax wala mu lay nuru taw ah. yuur ah. ci taar bi ak rafetaay bi ah, waaw wadax kuku yejlu zalaam ka surujin fii zulami bu musaan ree bëñ ñi day weex tàll ba fu lëndëm da koy leeral nañ wajuhu mu dawar kanam gi dafa roon huwa xamiisun azharu xamiis mooy eh, biir bi dafa dafa dafa nooxoon dafa dafa dafa woos nekkutoon koo xam biir bi dafa génn. Ah. loolu ak débordement ah. lay ah. dañuy wax ni digga biir bi ak gannaaw gi dañoo ak ak dañoo tolloo woon dafa maase woon. waaw mm, mooy waxu xamiisun am na ci benn riwaaya boo xam ne dañuy day wax sawa sawaaul batni wa sadri. mooy dënn bi. dafa tolloo ak biir bi dañoo tolloo woon. azhar mooy ku taar la woon rek. azhar. loolu day firi foofu mooy ku taaru woon la ab ab ab melokaan uh-huh. am na ci xadisu anas mu ne laysa bil abyadil amhaq wala bil aadam uh-huh. kon ku weex tàll wala bokk xonq curul uh-huh. waaye azhar la woon waxwa bahiyun asmaru mu rattilul takallum bu daan waxit wax ji day toftaloo day neex kaanna maa addahabi fii xaddihi lmuhallabi leex bi boo ko mosaan xool day mel ne ndoxu wurus lañ ci jaarale ni muy leer xatee wa kaana sabtal xasabi maanaam xasab mooy yàq bépp cër bu am yàq rek lu mel ni ñaari përëg yi lu mel ni ñaari ah. ñaari ñaari tenq yi ah. ak lu mel ni ñaari yeel yi ah. loolu boo ko xoolee da daan tàlli dawul banku waaw da daan tàlli wakaana sabtala xit noonuhu bakkan bi nii moom it dafa yëkkatiku waaw nekkutoon bakkan bu tàpp ndar kaamilu usn bank nopp yi dafa matoon sëkk addaange mooy li waroon ñuul ci bët bi ah. mooy per bu ñuul bi dafa ñuuloon kukk ah. Ah. wa ashnab dafa amoon ndoxu bëñ mu muy leer xati leer nàññ mu fallaj moom it dafa amoon sàkk lu yàlla wu rafet waaw wa ashkal euh, dafa amoon lu luy xonq ci weexaayu bët bi xam nga bët bi li ci war a weex dafa mel ni dafa amoon benn ndox bu xonq bu koy rax loolu ci ci taar la bokk jël nañ ci xadiisu jaabir ibnu samura mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana ashkalal aynayni daañu wax ay aynayni jublu ci it koo xam ne ni yàlla xare bët bi dafa yaatu nii ah, waaw dafa yaatu waaw mubtahiju ku bare woon mbégte la wala wuccu maa xel wooma mi kon da gis ne lii ay melokaan la yoo xam ne ñëw na ci ay riwaayaat yu moo tax uh-huh. suñ tubaa teg ci ne huwa akmalul wara uh-huh. kon moo gën a mat ci nit ñi xan wa xulqan zahara ci ni ko yàlla binde ak yi jukkoom wala mislu xattu lam yura wala yura fi chemi li ma tax xàmmee fii nag mooy tudd melokaani bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuñ nii rek ngir ngir ngir ko wala ngir wane wane wane dafa mel nu kenn melu déedéet waaye dafa am lu muy jariñ ndax melokaan yi boo ko tudd man nañ ci tudd ñaari njariñ ndax day wane jamaalul mazhar kii ni ko yàlla binde lépp mat na loolu dana la apporter Eh, kenn du mën a jaar fenn ba man laa xas ci lenn. Uh-huh. loolu benn la ci. ñaareel bi it mooy da nga neex a bëgg. Uh-huh. moo tax dañuy gis ne ñi ko bëggoon toujours bu ñuy gën a wax ay melokaanam di gën a fàttaliku ni ko yàlla bindee. dañ koy uh-huh. gën a bëgg dañ koy gën a sopp kon melokaan mu rafet ñaar yooyu bokk na ci ay njariñam. moo tax gis nga ñi ko bëggoon yaram na leen lu ne. am ñoo xam ne bu ñu ko mësaan gis daanaka dañuy dañuy dañuy daanu jéel la. bu dee melokaan yi jukko moom bariwaay bi moom foo ko takk weesu na ko daanaka man ngaa wax ne euh, boo jàng siiraam wala ngay jàng xadiis yi uh-huh. yëpp ay melokaan yi la danga ciy gis ne ku toroxloo ngi nii ba noppi ànd ak ak uh-huh. ci gis ne ku bari kersaa ngi nii kersa gu ànd ak njàmbaare uh-huh. danga ci gis ne ku tabe ku tedd ngi nii koo xam ne amut kaay gis kaay kaay leen gis ma mooy li muy def du ko àddu ko du ci ànd ak ngistal ciy gis ne ku wóor a ngi nii ku dëggoo ngi nii ci nu mu daan waxee ak nu mu daan jëfe hmm. booy gis booy jànge siiraam da nga gis ne ku dëdd woon àdduna la te hmm. àdduna wan wan ko kanam da gis ne it ku sellaloon la ci digganteem ak suñu boroom ci lépp luy jóge ci moom hmm. da gis ne ku amoon fasaaxal la ci làmmiñam waaye tamit ku woon ab xolam la ci di ko orienté ci ni ko yàlla suñu borom bëgg da ci gis ne ku ku ku amoon xel mu dëgër la mm-hmm. da ci gis ne ku rafetoon ak dégg-dégg la mm-hmm. da nga ci gis ne ku daan yëram gone la ak mag mm-hmm. da ci gis ne ku nooy la woon ku ku ku ku bari woon yërmaane la ku mënoon a jéggale la ku mënoon a jëlle la da nga ci gis ne it ku sori woon ak euh, tar la ku sori woon ak ak dëgër da ci gis ne lu mu musaan mbir lu mu musaan métti métti ku ko mënaan muñ la. Mm. lu ko yàlla musaan joxe ku ko mënoon di sant la. sant la da ngay ku ñeme woon la ci wax dëgg. Mm. kon yii yëpp ay melokaan yi jukko la. Mm. yoo xam ne feeñ na bu baax a baax ci mbir num sëriñ bi. ndax mën naa wax ne melokaanu jukko yi jaanib xoluq yi bii. tem bu mën a aborder da ngay seen dangay ngay seetlu ne. wane. jukko yonent bi sallallahu alayhi da caa feeñ da caa loolu euh, loolu nag du kimtaan ci koo xam ne dafa jugoon euh, di yeesal diine fekk sunna si euh, raaf hmm. mu koy mu mu mu koy delloo si ak koo xam ne dafa dafa bëgg a delloo si waat njàngalem yonent bi sallallahu alayhi ak koo xam ne dafa jug ngir tagg yonent bi sallallahu alayhi ak hmm. ngir gën koo xamal doomu aadama yi hmm. moo tax sëñ bi wax ñu lu leer ci wàll wàllu melokaan jukko yi xam nga ba mu waxee ne rek wana kullu zu ilmin wa sa'yin wa rubbatin ñett ñooñu ñoo fi nekk mm-hmm. ku yàlla jox xam-xam mm-hmm. kuy def lu baax mm-hmm. ak borom daraja ñeneen ñi ñëpp mënuñoo mel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jukko anil Mustafa fii xulqixil xaaizil ulwi waaw bayit woowu rek doy na sëg waaw teg ci nag wax la ay ay yenn ci jukko boo demee ci muqaddimaat wajiih la wasuul waasil waasi wasiim wahaab wasiy wafiyun karim la waaxid bu ci ne rek mën na am waxtaan mën na bu ci nekk waaw wax la lu mu la dig dum la dig jox la ko waaw faneen muy wax naan nawaytu dawaamal euh, zikri wa shukri xaadiman li xayril wara niamal xasinun muzayin taaru woon ku yàlla taaral mm-hmm. nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun xabibun misluhu laysa najiyun xaribun daakirun wa huwa shaakirun gis nga bu ci ne rek jukk la boo xam ne manis na cee waxtaan waxtaan wu yaatu daakir la shaakir la daakir la shaakir la kuy fàttali ko yàlla ku koy bàyyi xel waaye ku mën a sant yàlla ci dell ci dell di delloo xéewali suñu borom ci xam ko santaane naqiyun la taqiyun saalix la muslix muslix la waaw nabih la adib la du xayaa ila axirihi kon yooyu yëpp ay jukku la. Mm-hmm. daayira bi fa mu xam ne dana faral def ñaari ci gàmmu gi. Mm-hmm. gàmmu gu jot mu tànn benn jukko waxtaanee ko. Ah, ndax ndax ndax ndax lu mel nii la ci seetlu. Mm-hmm. boo demee ca mawaahibu haadin mujiiru haadin la mujiir la. mujiir la nuur la muniir la <laughs> leer la day leeral. xaydu la bashir la. li si tidaay xaamin la nasiir la daain bashir laydun nadiir li si tidaay almuwaahib moom hmm. dafa lay wax ne melokaan bu ne ak fa ko jëmee waaw ku mën a xetle la kuy bégle la hmm. ci koo xam ne dangaa dangaa dangaa sax ci ak njub hmm. dangaa nekk ak jullit gëm waaye tamit nag lay dun nadir gaynde la ku mën a xuppe la li sentidaay ci koo xam ne dangaa jalgati dangaa tooñ mushkil li shaakin ku mën a dindi eh, tawat la ci koo xam ne dangaa tawat dangaa am looy jàmbat bishrun li baakin ku mën a bégal kuy jooy la musqin li xaakin ku mën a diglu kuy jàmbat la kuy nettali waaw wadi ni daay ku ku mën na la mën na laa teg ci yoon mun jin li saalik man jan li na mucc la muccuwaay la pour kuy jaamu yàlla jaali xawaali kuy dindi ay njàqare ak i lëndëm la en gun mu faqiir boo nekkee ku ñàkk am koom la. am koom la jabru bu fekkente ne da am ay gaañu gaañu da nekk ci ay njàqare. Hmm. mën naa wax ne ordonnance la. Hmm. da lay jàng surtout xaqiiri bu fekkente ne da ngaa xeebu. Hmm. daraja la joo xam ne boo ñëwee. gis ci sa bopp. wa huwa al jaliyu loolu moom beneen beneen dimension la. ku ku la waaye ku la. wa huwa najiyu lil baqaayi kon daal ci gàttal Serigne Cheikh mën wax ne. lii. ay jukkala yu bare bare bari bari ak i melokaan yoo xam ne dafay hmm. feeñal wàccuwaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoo xam ne kenn mënu koo cibbu wax lii bàyyi lii waaye lu ñuy junj rek la hmm. moo tax Sëriñ Tuubaa li mu wax ca euh, raaya ne waxuwa najibu lasi fi wasfi xalqatihi hmm. xilqatihi wa xulqihi qiila tas jaaxun wa ash'ar jëmm la joo xam ne di melal ay jukkoom ak ni ko yàlla bindee wax nañ ci lu dul jeex ci ay sajon ak i way mooy wax ju neex ju adabe ah, ju bokk fu ñuy daaneel ak i way hmm. walam yaji min zawil iflaaq wal bulaqa bi saj'i wa shi'r mi ma xaaza mi achar ñoom ñi ñëpp seeni wax <laughs> hmm. waxuñ asaka ji sax hmm. ci ni ko yàlla ni ko yàlla baaxee ahlul fasaaxati turon bi sanaa madaxu ñi am fasaaxa ñëpp wax nañ walaysa yudraku bil akwaabi tayyaar waaye géej boo yoree kopp di tànk yàq duñ seetlu lu ca mën a jóg daan ne kan boo ngi nii Hassan Busayr ñoom ñëpp wax nañ mm-hmm. ñoom ñëpp seen i way ay leer la ay mbóot la waaye nag liñ ci mën a wax mooy kii daal yàllaa ko binde fa yàlla teg ak lam ko def xel àggu ca xalaat àggu ca kaabun wa xasaan wal busayr qad barau wa mm-hmm. kulluhum chiruhu nuurun wa asraaru mm-hmm. fa mablagu l ilmi fiihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaar <laughs> ci gàttal yaakaar naa mënees naa tënk loolu sëriñ Cheikh mhm. ci ni yàlla bindee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ni ko suñ Tuubaa jàngale mhm. ak jukko yi nim nim yaatoo nim baree ak mhm. li ci sëñ Tuubaa junj ak lam ca yaatal ca barab yam ko yaatal xam naa du ñàkk yeneen jotaay insha allah jukko yi danañ jël par yennat jàngat ko wutal ko ay cosaan ak i source insha allah euh, jërëjëf euh, sëñ Abdou bu Bousso wax jàll liñ doon séentu am nañ ko niñ ko bëgge muy tënku na lool waaye leer na ci ñaari anam yi nga xam ne leerale nga ko euh, chamail yooyu muy melokaanu bindam sukkandiku ci jës bu te la ko jiituut wane nga ne lii sëñ Tuubaa njëkkee ko hmm. waaye ci ay boroomi xam-xam yi fi newoon ci ay nettali yu wér a wér ci la jóge hmm. nga ba nga indi fukki bayit wala fukki bayit ak benn wala ñaar yoo xamante ni ci jës bu leeral ci melokaanu bindam te loolu siiw ci ay riwaayaat yi wér a wér a wér hmm. eh, nga wane tamit bi ngay tëj bunt boobu wax ne nettaliw ñu bindub yonente bi ak taaram ngir nettali ko noonu rek waaye dañ cee mën a jàngate ne hmm. eh, jamaal boobu ko de yàlla defal muy jamaalu zahir bi hmm. waral kenn du am aw yoon ci yow bunt bu ngir xas la su la bëggoon xas ci bind du am fu mu jaar ndax gis na yàlla matal sa cër yëpp ba ca desit dana ñoddi ñi lay waxtaane ci ñu gën laa xemem gën laa bëgg mm-hmm. ndaxte boobu bu ñuy wax ci yow gën a sawar mm-hmm. te loolu it lu am solo la moo ne ne daal loolu ndake ndake neenut maanaam yàlla taaralu sang bi saa sallam def ko mu gën a taaru ñëpp ngir mu gën a taaru noonu rek waaye dafa am sabab beneen bi ci desit mooy bi nga ñëwee ci ay jikkoom mm-hmm. résumé nga bu baax a baax wane ci e, muxaddamaatul xidma e, muxaddamaatul am daax ak ci yeneen raa yi ak mel noonu wane ci ay jikkoom yi nga xamante ni sëñ bi tudd na ko yëpp sax benn bu ci nekk mat na waxtaan waaye ngir xataay waxtu bi waaye ñu dégg ko tax xam ko rek xam ne xasiday sëñ bi fees na dell ak tagg yun saay salam ak ay wane ay jikkoom euh, loolu na lépp nag boo ko boolee dañuy jox rek li sun borom wax ca euh, di ko tagg wax ko ne ko innaka la ala xuliqin azim mm. moom daal bu fekkoon ni jikko ju rafet fasu naar góor la yow rek yaa war yaa ci kaw mm. loolu yaakaar naa doy na sëkk da ngay gis même ci xasida ak euh, mawaahib googu nga nga wax sànq euh, nga rabbin am solo mu def ci yonent bi sallam in raama ilman aw raama gunman aw raama zulman baaxi nga gis ni que gis nga bayit wa cay topp mooy tontu yële fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda wa zaaka loxo daa baabi shaqaay kon day mel yéen saa matal na lépp. kon ñu def lu sant la bu baax a baax gërëm lay ñaan yàlla yokk xam-xam bi. yàggal taxawaay bi. kon mbokk yi lii lañ leen indiloon ci turu kuréelu liggéeyal ku tedd gi. di santaat bu baax muqaddamatul xidma ci taxawaay yi am solo yi ñuy def. ak jàppandal gi ñuy jàppandal waxtu wu nekk rek saa bu ñu soxlaa yu mel nii te xam ni kuréel yëpp ci liggéeyal Sëñ Tuubaa rek la ñuy dox. di ñaan yàlla defal ñu tawféex. Euh, di ndokkeel bépp jullit comme ni nga ko waxee ci gàmm gi di ñaanal sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk koy leer te ñu euh, taaf ñu ci barkeem te saxal ñu ci aw yoonam te def ñu dëgg-dëgg taalibe sëñ Tuubaa yi sëñ Tuubaa nangu seen ab taalibe wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin